الطيبين الطاهرين ومن نهج نهجهم واختدى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام نحييكم ونرحبكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi seetaan seen émission bi ñu tuddee xam sa diine ci seen sit internet bi ñu tuddee Elvision Média mu mel ni ki dellusiwaat nañu ànd ak yéen ci seen émission boobu comme ni ñu ko baaxoo daan defee ginnaaw ba ñu leen nuyoo itam ziar leen képp kuy safoo émission bi rek mu xam nga nekk ci biir réew mi wala itam nga nekk ci bitim réew ñu ngi lay fekk fa nga toog jox la suñu loxo xol comme niñ koy faral di waxee rek ah nuyu leen itam ci baat bi ñu yàlla boole mu di baatu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. di ñaan itam li baat bi làmboo yépp yàlla na ko yàlla sot suñu kaw ginnaaw loolu itam ñu nuyu tabaarakallaahu suñu caméraman bi di elhaj loo ak itam suñu soxna bopp bi di soxna jay na ba Balde fa tabaarakallaahu ñaan itam suñu boroom yal na yàlla defal leen tawfiix eh, li mu yéene ci sit bi itam yal na ko ci yàlla defal incha allah mu mel ni sunu waxtaanu tey dafay dellu ci li ñuy tuddee iñaan parce iñaan li muy yàq dafa bari iñaan tax na nit rey mbokkam iñaan tax na nit wóolootul nit iñan taxna nit ñi bëggante tuñu iñan taxna nit ñi soppante tuñu iñan taxna kenn mënatul dox ak mbokk te dem bo xolé ba ca biir iñan ki koy def dafa melni ni dafa gëmul suñu borom parce que la nga gis ci nit ka ba tax nga di ko ko mais suñu borom moko ko jox parce que lu ci nekk rek yàlla daf ko bind laataa ñuy judd gis nga bu sunu borom ne elhaj dafay am étage man ma ne du fi ame mais kooku yàpp suñu borom la parce que elhaj la mu am loolu moo gën ci moom man itam li ma am moo gën ci man kon boo bëggee noppalu rek té ngay nangu dogalu borom bi motax suñu borom da fay wax ak ñun ci alquran ne ya ayuha alladina amanu ittaqullaha llaha waltanzur nafsun ma xaddamat li gadin wattaqu llaha inna allaha xabirun bima taamaluun yàlla nee na yéen ñi ma gëm su ko waxee kon li nga cay déggee muy yéeféer bokk ca sa boo demee ci usul yu ne dañuy wax lu ñuy tuddee euh, mafhumu mu xaalafa ak mafhum mu waafax su yàlla waxee yéen ñi gëm rek kon automatiquement da nga ciy déggee ne ñi gëmul bokk yi yàlla ne na ngeen ma ragal waaye nag nangeen xool la ngeen di jëf waaw parce que bakkan bu ci nekk suñu boroom nee na la nga jëf bu yowmal xiyaamee dañu la ko fay ki ngay añaane bu yowmal xiyaamee dañu lay fay kiñaan gi nga ko doon iñaane te gis nga ma wax la gis nga yàlla ku yéeme la gis nga booy iñaanee El Hadj mii chaque jour yalla day def elxaaj di yokku yow ngay delu ginaaw wa motax yonenti bi di wax ne ma ngi len di denk ngeen moytu kiñaan mune parce que kiñaan ni mu mel mi ngi mel ni mi nga dugal ci taal bi gis nga safara wi ni mi lekke mat bi nee nonu la kiñaan di lekke sa jëf ju bax parce que dañu wax ne inna alxasanaat yuzhibna sayyi'aat waaye itam inna sayyi'aat na xasanaat gis nga booy def lu baax dangay dem ba lu baax loolu dafay mujj di effacer sa bon mais booy def lu bon yi itam dafa dem ba lu bon yooyu dafay mujj di effacer sa yu baax ah. tey def il faut ñu xam ne yàlla moo séddale wërsëg yi ku ci nekk la yàlla tudd na da nga ci jot ala kulli xaalin balaa ngay dee di ci jot léeg-léeg nag yàkkamti baaxul mu tax yonent bi ne yàkkamti mbiru seytaane la waaye itam tey kooku mbiru sunu boroom la eh, moo tax gis nga mag ñi bi ñu xamee suñu borom rek xam ne moo séddale te yamalewu rekk la ñu noppalu moo tax daf ci am benn mag bu bind wax ne hal min muzilin bi ma qad kaana yuriduhu rabbul ibaadi alayhim rabbi nee naa boo bëggee noppalu li sunu borom dogal rekk ànd ceeg moom ay boo bëggee ne li yàlla def danga ko fiy jëlee mais da ngay sonn da ngay sonn parce que yàlla nee na man maa moom sama yëf te itam lu ma neex laa koy séddalee waaye saa yee El oto bi mu yor daal mënuma ko sipport ba tax ma dem dugg ci sëriñ dugg ci maman yi dugg ci xarfa xuufa yi pour rek naa liggéey hélas mais xaw est xam nga ndax hélas moo la ëpp bopp wala ëpp la bopp mais il faut xam loolu parce que liggéey gi ngay liggéey hélas moo da nga gëmul ne oto bi mu yor yàllaa ko ko jox boo ko naree iñaane moom muy yokk ngay dellu ginnaaw moo tax gis nga sunu borom bi muy jox yónnante bi saar yi nga xam ne daf koy jàng pour di ko musloo bokk na ci yi nga xam ne dañ koy muslu ci nit mooy kiñaan wa min charri xaasidin isa xasada ah yàlla maa ngi laa ñaan nga musal ma ci ayu képp kuy kiñaane yàlla nag ma ci musal parce que gis nga li yonent bi wax ne am na benn suux bu nekk ci nit nee bu baaxee lépp baax waaye bu bonee itam léppam bon moo di xol gis nga bu sa xol sellee dinga xajoo ñëpp doo añaane kenn Do yene kenn lu bon do liggey kenn waye gis nga bu sa xol boné ci iñan rek ngay dëkk nit ñi di la raw rek ngay delu ginaaw rek nit ñi di la raw rek ngay delu ginaaw rek mu tax dañ ci joxe misal ci benn goor bo xam goor bi mi ngi tuddu lu way def bopam mo am benn bis am ci benn soxna bu nga xam mom goor gi daf koy déranger mu ne kii il ma posone ko mu dee ñu noppalu waaye gis nga pour wax la yàlla naka la góor gi dem tool di liggéey rek ndaw si dem prépare benn genre laax wala benn genre seran def ci ay xotti biteel pour posone góor gi dem ca tool ba fekk ko fa ne ko bay diw mu ne ko labbay mu ne ko ah lii da ndekki la dama ne woon naa la andi ndekki ndax xam naa sonn nga day sànn góor ga nekk ah lu waay def boppam wallaay ndaysan ndaw si tok ba si yag mu ne ko bàyyi góor li dana seddi mu ne ko waa lu way def bopam ci tout am ñetti xalé yu jige ci all ba di ñew naka la xalé yi ñew ba tollok bol bi rek gor gi ne len ah sama dom man de li dañ mako andilon ndek waye man daanaka xiif ma jël len ngeen ndekkee ko seetal ya lolu naka la ko xalé yi lek ba pare rek ñom ñepp dee di dé ben par ben ben par ben ben par de deke li ci gëna yéme moy xalé yi ñom ñëpp soxna si mo leen jur pour wax la kiñaan gis nga li wolof naan yéne a la borom ma cey fanan ene a ah, la borom ma cey fanan parce que la mu doon gi ba di ko na ci njabotam musiba dal ko motax gis nga li kat bi doon wax naan wa hasibin nafsa fi dunya muhasabatan qabla al qiyamati tarbah duna khusrani neena mang lay ñaan nga régler sa bop di toppatoo sa bakkan ba bum la def lo lo xamne bu yowmal qiyamé ak perte nga nga cey jëlé wa ak perte nga nga cey jëlé bu defé kon li ñu am ci waxtu wut ñu parafito rek mo am ci benn góor boo xam ne dafa doon dénk benn njabootam benn kilifaam waaye bi mu koy dénk yam ko doon dénk bokk na ca naan ko abdal aziz yi airni l qalba usika wasiyatan anka tashfi kulla ma fiika fi za zaman alladi amma alfasaadu bihi wala tara ahadan fiihi yusaafika فخذ طرفك لا تفصح أقي أبدا ولا تكنن تعادي من يعاديك ومن أساء فسامحه وصل أبدا من خاطع هاتك بالخصف يرميك أنا أقول ألمس خلبي ما دينك للغا خمني بوتا سكنديكو مومن دي لا صافرا بي لا يوم الدين انا كو لوتاخ موي جامونو بي في مو تولو دا فا يقو ci añaanante beeg iñañanti beeg liggéeyante beeg soxorante bi waaye nee na ko yow li ma lay dénk mooy koo man di gis rek jàppee ko comme sa bopp tax li yonent bi naan sa ngëm yàlla balaa mat dangay ngay yéene sa mbokkam jullit li nga yéene sa bopp mu ne ko nag bi ci des mooy euh, ku la mën a yéene lu bon di la soxore di la iñaañee maa ngi lay ñaan fa saamixu na nga ko baal rek te yàlla tax te itam wasil abadan bul ca yam del jokk kóllëre sa diggante ak moom ku la dagg ku lay toroxal ku lay xas ku lay jam tuuma bu mu tax nga bàyyi ko ndax wolof nee na mbaam bu la weqee nga weq yéen a yam ah tabaarakallaahu bu defee mu mel nii li ñu mayoon ci waxtu jeex na bu defee rek di ñu delluwaat tabaarakallaahu bëggee ñi ñuy bëggee ñépp ñi ñuy seetaan ci sit bi fu mu mën a doon ci réew mi ci bitim réew mi di ñuy tabaarakallaahu sama benn grand bu nekk ca Italie ak itam sama benn grand bu nekk ca Brésil ñu koy wax Albasir ak Mor Ñang Sàlla tabaarakallaahu xaali Sàlla Mor Ñang ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu defee ñu delluwaat rek santaat suñu caméraman bi di El ci liggéeyam bu rafet bi ak coono bi muy daj yëpp itam yàlla na ko yàlla fay tabaarakallaahu yàlla na yàlla yeggale yéeneem fi mu yéene site bi yegg fii itam yàlla na ko yàlla yeggale ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa kon nag bi muhammadin wa bi bintihi wa bi ba'liha wa bnayhum shibtayni a'laami alhuda wa bi sahbihi wa taabiina lahum fahum saadatuna makarimi almakarimi nada farri saqaama alabdi waksaf karbahu ya xayra man mada aluzzaati lahu lyada wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi leen jox dig daje alxamis bii di ñëw ci waxtu wi ci seen émission xam sa diine ngeen ànd ko ak seen mbokk seen soppe sen wëllër sen xari babakar Sall ñi ngi nuyu ñëpp ñi ngi ziar ñëpp alaykum wa rahmatullah